dalleen ak jàmm ci li gën a fës ci internet bi ñu doore ko ak génn àdduna kii di Abdoulaye Thiam alias douzième gaynde moom nag ni ki démb la faatu ñu koy jàll Sénégal ak waa këram mu nekkoon koo xamante ni nii rek génération 2000 bi ràññee woon nañ ko bu baax a baax ci match yi nga xamante ni nii da doon déguisé wu ànd ak gaynde yi ba gaynde yi sax demoon finale coupe d'Afrique dem quart de finale coupe du monde euh, di ko jaal waa Sénégal ab accident bu métti moo am niki démb ci yoonu Saint-Louis ñaari nit ñoo si ñàkk seen bakkan euh, benn alo taxi bu jóge Dakar doon utali Saint-Louis ak benn bus ñoo daal di laale euh, ci guddi gi ñaari nit nag ñoo si jot a ñàkk seen bakkan di conducteur alo taxi bi ak passager ba mu yaboon ñi nag jëlee si gaañu gaañu yu métti mounou moudjilèn yo bote opital Saint-Louis an gir fatlèn. lu yéeme te doy waara benn soxna buy wuyoo FL Diallo moom nag fësaluñu turam bu ñu sukkandikoo si libération ay atam toll ci fanweeri at ak benn moom daal day jékki saay rek di soode ay nit wala di di gaañ seen waa kër ñenn ñi nag nee nañ dafa am déficience mentale maanaam léppam yembul waaye ba mu taxawee ci kanamu tribunal bi moom yaayam ak magam bi nga xamante ni nii rekk daa diwlin euh, saasal ko ba mu saa sotti ko mag ji ñi ngi naan lépp lu mu def ab téyeef la moom a présumé bi nag ki def bile ñaawteef dafa ne seen waa dañ ko seetaan boolewuñ ko ci dara moo tax mu gis ci boppam moo tax daal moom lépp lu mu am rek ci ñaawteef ñii mi ngi leen di gaañ ñii mi ngi leen di xosi ñii mu leen di soode jamono ji nag mbir mi mi ngi ci kanamu yoon lii lañ leen indiloon ci li gën a fës ci internet bi ba beneen yoon incha allah sur Sen Direct